Sénégal Plus. non kii laay jël sama verre xam nga yéen maanaam da ngeen ma waroon bàyyi ma jël sama temps xoolal lii ngeen ma yàqal yii nga xamante ne verre yi àdduna xam ni Bou Siteu verre lugam la te parce que gis nga loolu nu mu tojee international kon su may def émission maanaam deel ma seetlu mais ngeen bàyyi ma nii nii nii nii nii nii tamal sama bët yi tey dafa jot may làqatu léegi damay làqatu de ama rek noonu la demee nag non kon cité bi laay wàññi waaw te parce que xamul tax man la cité bi laay wàññi buukunte njaasaan lañ ma tuddee man ku sell lañ ma tuddee de dëgg la nii tuddee naa sama bopp cité sax tuddee moo ko sama bopp maanaam ñit ñi ñoo ma ko tuddee parce que gis nañ ni maag cité maanaam ñu nduróowee woon ma nekk xale daan dawal seret di sol ay laafa di koy wengal xama di watu di tent comme tent cité yi boo ma gisee da nga naan cité la di di laxasoo koli, ya yaa ngi fàttaliku cité ay anecdote si ginnaaw gis nga kol yi mu daan laxasoo yooyu dama ko doon toppandoo di sol ay tik xam nga fecc di fecc ay feccam mu nekk loo xam ne daal ma ma yàgg ko roy daal ci ay gestam waaw man benn idole laa am muy ku si mel ni Sakho Dior waaw kooku moom ma yar ma may nekk xale indi moom ma sa njaaram xam rek di ko nuyu depuis Espagne di ñaan yàlla fëgg boppam quoi Sakho Dior numéro 2 parce que bu Siteu ko waxam xam ne deretu géejawaay mooy daw ci yaramam ak fépp fu ma mënti dëkk te ñaan naa yàlla dëkk nag ba ay jas ba ay ngaay mexe yi nii yëpp yàqamti am fa titre foncier dëkk fa mais xoolal kilifa yi nekk si dëkk bi ni nii nii tey yàlla dafa leen ay daraja tey li ñu am man dama ko war a am est-ce que xam nga ne kilifa yi ngay dégg am na ñoo xam ne am nañ ay Tambacounda ay ay ne nii maanaam waaw ay ay ay Fuuta xam nga foofu noonu yëpp am na xam nga kilifa yi ñu si bëri ay làqatukat lañ ñoom dañuy làqatu te man dafa jot sama niveau moo toll ma xam te ne la maanaam Tivaouane Peulh dëgg la fa laa am titre foncier de sama terrain fa la nekk de di nuyu Basirou Ka bu baax kon tey su ma demee ba am terrain Tivaouane Peulh rek kon dama ciy sant Basirou quoi moo tax Basirou Ka maa ngi koy sant bu baax tey su ma demee ba am terrain Tivaouane Peulh te ma ko waxewu ma ko su ma neexoon léegi nii nii nii jaay sama terrain te ay million kon tey bu Cité yoon la ma am kër ay ay Cité Fadia ay Maris xam ay Almadi teewul deret fi nga dëkk ak fi nga dëkk man deretu Géejawaay mooy daw sama yaram waaw beñe dugub beñe dugub moom nekk na loo xamante ni nii maanaam xam isa xama ma ne am na meer bu daan jaay beñe sunu koy saa yi ma nekkee xale saa yi may jàng yi meer bi yenn saa damay taxawoo ne ko xama rek saa meer bi damay jékki benn affaire ne ko meer xoolal kii bi yëpp may toll lii bu tourné rek ma siif beñe rek dugal sama sama silib taa sama silib laa dugal xam miine xam naa ne instant yi sax mu ngi jaay ay hamburger yu gën a kawe beñe dugub te yooyu laa leen di ñaanal waaye sama niveau dépassé na ay moto essence ay oto range range EV comme yu Waly Seck di dawal waaw comme yu Aziz Ndiaye tamit di dawal borom alburax Baye Ndiaye Aziz Ndiaye di ko félicité ci soxnaam si soxna sax tur bi laay ay sa rasul koo xam te ne maanaam soxna su valeur la daal waaw Aziz wax ne kontaan nañ nag si kii ñu ni taxal mais nag bala maa wax la damay sant Mam Binta soxnaam si génn àdduna fan yi si Guinée di ñaan si yàlla suufu teewaawoon sedd ci kawam moo tax boo tax bon boo déggee Aziz Ndiaye tax na jabar rek sama xel day dem ci soxna soo mu nekkoon soxna soo xamante ne naam soxna su baaxoon la daal nekkoon koo xamante ne nii maanaam yàlla na koy yàlla na suufu tuwaawoon oo si kawam daal waaw maam binda su ma maman su ma lépp koo xamante ne maanaam ku bëggoon Bou Siteu koo xamante ne maanaam da yàgg a enjoy Bou daal di ko ñaanal suufu tuwaawoon oo si kawam di ko jaale famille Ali ak kii Aziz Ndiaye waaw nekkoon soxna su baax daal di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm mooy kii luy wax nii tëdd nelaw ma dàqal fuuf loolu maanaam ñaar yi ngay wax nii rek sama jamartarment opposé yee sama jamartarment opposé nelaw ngay jaawale ak dem di rey sa bopp loo xamante ne mun nga fa sax fatt dee wala nga war na sa làmmañ mais nañ waxante dëgg rek mais gars bu bu bul ma posoti question yu mel noonu de mais dama dee mo da xoolal dama yàq émission bi ma bu ma posoti yooyu yow nelaw ngay jaawale ak ay dem di mbëkk ay din di tok say tang sa tànk di dem ak di di foqoj ngay belesa sa gour nga naan waaye sama lii moy met mo nga may ak baye ko di nelaw di féexlu mais bu defati yoyu sama xel laay jël doole yi yooyu noonu yëpp après la te parce que man xale laa waruma yàqamti di teg sama bopp yenn yoo xam ne naan damay ut doole xel laay ut ak esprit milliard minti milliardaire bi nekk sama bopp xaaxaw ñu bëri may kii nii nii de xaaxaw man maa ngi dem si ay kër kilifa sax ñu may may xaalis te soxloo ma loolu de ñu may may xaalis nag maa ngi koy jël de mais sama xel sax nekkul sax si millions yi ñu may may nii te parce que esprit milliard minti milliardaire bi nekk sama bopp maanaam di koy doxee di koy waxee xam nga mu nekk loo xam te nag man personnel la maanaam mooy xel bi ngay wax man xel laay doxee soxla ma ay doole. non angale waaw ta parce que angale dafa dafa xaw a nekk maanaam làkk bu góore fu góore daal waaw ay xawaayu duruñ ay cokk bee xam nga ay foog dal meg seen waanaa biir a baari ay foq yu ay yu meen xam nga ay yu meen ak yooyu noonu yëpp maanaam dafa nekk loo xam te nii maanaam ay dëbu asi daa mel la de asi xam yëpp dafa nekk angale yoo xam te nii xam nga ay ay meen yooyu xam nga yooyu noonu yëpp nekk loo xam maanaam dama koy rêvé la sama life yeah waaye ma nekk Amérique pauvre moo ma gënal waaye kii nuyu maanaam yow yow instant yii waxu dof nga may wax nekk Sénégal nekk fi milliardaire ak nekk Amérique tusuma sama wetu dëkk bi noo Carolina di nuyu waa noo Carolina bu baax su mel ni Ameth koo xam te ne maanaam su may woo téléphone nii sax Macky Sall di ma woo ci kaw nii damay coupé Macky Sall continuer ak Ameth noo borom noo Carolina borom Ngaay Mexe borom Thiès waaw maanaam directeur waaw ndeysaan wallaahi man sama xol dafa rey ba ba nii nii nii la gis nga niveau bii ni ma toll nii yenn saa dama yor sama moto dem sax am fu ma jaar sax nit nit tudd ki ma daanoon ne eh dañuy woo diw mais xoolal lii ma la wax ci koo xamante ne nii maanaam mais dama lay jéggal daal bële fee ne la eh bégee nice man noonu laa mel te parce naa niveau boo xamante ne nii tey jii si réew mi dëgg la émission yi nii ñu may gis de ak ñi ma bëgg may wax nii nii nii de mais maanaam ni moo tax xanaa xam am nañu bëri ñoo xam ne bis dina ñoom dugal aljanaata parce que xamuñu yeen say nga waxal Bou Siteu loo xamante ci si nga sétan ko de nga yaakaane ki kii wax loolu mo nekk ci xolam wa man bamay dugg ci lamb dama xamni li lii may dugg ni sport la sport bo xamanteni warul am leneen lo xamanteni ni lu génn sport sport ka foré la ko jappé man deugul essence 3 défaites la tegale ni dé mais est ce que xam ne trois défaites yi mo tegale ni deugul ak am métti ci ñi ma bëgg parce que lamb sport lañu wax mais da ngay daan wala ñu daan la xam nga xam nga man bamay bëré di dem ay samay njabot samay wajur ñoma ñaanal samay mbokk ngembuma mais ki ma doon bëreel ay xaj ñoo ko doon ngemb ak ay ña ñoo ko doon ñaan ay ay ñaanal mais dafa am kilifa comme man ni ma amee kilifa léegi après ku des yàlla moo des waaw moo tax sport man noonu laa ko jàppee quoi ba si ni may génnee si mbedd bi nii yenn saa nit def ma loo xamante ne wallaahi aka ma koo mënoon gaañ mais dama naan ndeysaan maanaam kii matul daal ak noo mën a mel nag dama naan saan xool ko matul yee matir waaw il est matir te parce que génn nga loo xamante ne nii ma damay jàpp ne xamul daal saka lamb manam, képp ku si nekkul rek bala nga nekk si lamb nag ne da gëm ni si da ngaa xamul Yékini kan moo ko ëppoon ci lamb Yékini Yaxya Jóob kan ci lamb mais ñaari combat yi mu bëre daanu nii nga yaakaar ne la doole la ak physique entraînement bu wóor ko gàlla ci lamb yi mais tey xoolal mais da ngay la rek waaw man moom nañ ma sànni si ilie huit bi si côté yooyu noonu nañ ma fa sànni rek ma yéeg di wàcc yee mais attaquant yenn saa da ngay wàcc ba ci suuf ñëw ba défense di dimbali ñu nekk si défense bi mais affaire soxor yooyu mooy lan ñu sànni la attaquant rek nga nekk attaquant rek mel ni Sadio Mané doo wàcc si suuf nekk ci kaw luñ la envoyé nga luñ luñ la jox nga enroulé yenn saa yi nga banaana bal bi mais yenn saa yi dafay baax nga wàcc di dimbali défenseurs yi suuf xam nga di jàppale ay Diafara Keita ku si mel ne ay Gana Gueye mais mais nekk si attaque biir maanaam di nekk foofu di foo tubaab bi ñu lay sànni ay guutu ndox ngay for di naan di guux di sëlmu di génnee ay lamañ xam nga yooyu kiiwul daal. Eh, man su ma nekkoon attaquant nga gis attaquant bu sawar vingt vingt laay def diggante défense ak attaque. signature contrat te parce que Bou Siteu man bu ma waxee Sénégal kontaan bu ma signature adduna bëgg mais imagine toi ay ay taxaw ay ay jours yi bëre say say ñi la bëgg di tiit ñu mën a lekk ñu mën a naan di la xalaat yàqamti ndam li ñëw nga leen di teg stress mais waaye signature ma dàqal loolu waaye lan waxuma làmmañ te parce que ku ma xam-xam ni Bou Siteu waxkat la man su ma waxee Sénégal kontaan xam nga su ma su ma waxee su ma waxee Sénégal bég xol yi sedd xam nga ñëpp kontaan kon bët bi na dannaaw na paccal na làmmañ bi di di salona rek mais imagine toi làmmañ léegi boo amul làmmañ boo bëggee wax lu neex wala nga bëgg a nga fay nekk naan ay hmm. non sama niveau dépassé na ay mayga di nuyu sama booy nekk amoo si dañuy toog si mayga yi chaque jour ñu ne buu gaan ñëwal gaan ñu commandé la ma ne leen sama niveau dépassé na ay mayga man ay resto laay laal ay pizza xam nga pizza New York yi nag laay wax waaw pizza New York yi ak pizza yi nii nii nii sama jamartarement opposé maa ngi gis sax am ñoo xam di di toog resto teg ay pizza xam nga teg ay burger maanaam di sinap nga yaakaar ne ndeysaan yaa ngi lekk loo xam te ne te ndeysaan maanaam demoo Amérique daal waaw ba fekk fa Moustapha taaliba Serigne Saliou bi ndeysaan moom bu la jaayee hamburger boo lekkee hamburger di nga xam ne hamburger New York yi ak hamburger yi nii nii nii nii sama ma opposé non instant moom moom Baye Mandione te parce que combat tolof tolof lay doon te parce que ku xam Baye Mandione xam ne si ay tolof tolof la jógee ku xam Bou Siteu xam ne si ñetti tolof est-ce que tolof tolof la sax noo defaru du defet si ay defaru laa jógee ay defaru yoo xam te ne yu ma jig la waaw ay defaru yoo xam te nii maanaam yu ma jig la te bu yàlla sax bu nee defaru yi sax xawagul baax gën maa teg sax xama nga gën maa teg defet yi dal yee parce que defet daf ma jëkk waaw bu tegalee trois defet tay sa niveau tollu fo xamanteni ni nii xamanteni manam amna ño xamanteni na si réew mi est-ce que xamu ne si réew mi amna na si ay kilifa yo xamanteni dañu tok rek di di di xam na ñëpp mais ñom dañuy xaar ko ku nekk si nakar ñu ñu jog ta bu ñuy jog jog bu gara manam dafa am ay kilifa yo dafa am luñu joggé ci man mais xol fi mbeuri fi tegale ay 20 fukki waane yenn autorités yi di daw sen ginaaw tay jii autorités yi yi nekk sama ginaaw ni ni manam maanaam si si napp yi mo joggé manam dañ ma si gëna téye xam ni booy bii nii jàmbaar la ku ko jàppale day dem dëgg la mu ngi tegale na ñetti defet yow fii nii ñaar mbër bu fi tegale ñaar defet xam nga lay déggati wala di nga ko dina rusa sax nga koy dékk micro nii muy wax kon man du lambu daal ay ku tafu sama wet yée moo tax booy booy yëpp a xam sama booy moo tax ñi ma bëril ñëpp seetlu lu ma la wax kenn musu see tafu sama sama fii fii boo ko laalee rek am na loo tooñ foofu wala nga jël sama tànk lool boo ku am set victoire na a yi dama xooli sama yeneen sept victoire yi xoolal rek man est ce que xamal ci làmb ji nii kenn dàqu ma fee bëre ci làmb ji mbëri mag yi ba ci suuf dëgg la yenn saa yi dinañ neexal sax na diw dafa mën a bëree mais ay li nekk sama bopp nekkul sax si seen VIP yi ngay dégg nii nii nii nii si làmb amul man dama nekk mbër boo xamante ne man mbër man personnel laa maanaam man bokkuma cee kenn ci bëre ci wax mu neex xam nga ci fecc waaye waaye laaw la cat waaye buusita laaw la cat man sama lekk bu amul kaani nii rek boo ma ko tegalee sax maanaam yow sax te yaa ngi ko teg nga ko pour ma lekk de mais bañaale naa la si pet bañaale naa la bañaale boo xamante nii munuma laa wax sax tegaloo ma li ma fa bëgg nga tegal ma ay bëggëj ak ay ay suul ay karoot ak ay basanteeg te tegoo ci loo xamante nii maanaam luy safal affaire yi la yee am na laay jël sirop fara fa mais toj noonu rek bàyyi ko noonu non loolu loolu nekkul lekk bu neex te am na sama yenn buloo maan yi sama booy yi bu ñoom buloo maan yoo xam ne genre lekk yooyu rek la ñuy lekk yéen saa dañuy sina ma xool lekk bi ne accam ku si ne Mara sama buloo maan bi dëkk ko jiboo booy yéen saa nekk réseau ànd booy buloo maan yi ñuy yoo xam ne ni mbër gee ma xool ne accam mais maanaam accam bi nag du ma la wax nga lay boo coupé la accam bi di ñëw man boo rek defaral li ma yu mel noonu noonu nga tek ko nga xol yo, yow yow affaire waasun tuur yi ngay jël diko tek leg yeen mais mais mais poju ginar mais poju ginar lay jël ak ak ak ak putu ginar, man ni ngay gisse dama bëgg putu ye yee tusumaa nak ñu lakk ko bamu wo wow xong wow wo ñu lakk ko bamu wo wow koy ki xam nga ay do xala sax ay yah xam nga put amul yah do nek fofu di sentir ay yah da nga koy kii mu nan kraj muy melni ngay lek bonbon man mo lo rawon ginar ma allah dal ginar man iya dal ginar wa yalla dal contane na ci yow ci ni nga indé ginar waaye déglu ma la de maanaam taal dafa neex mais imagine toi loo xamante nii dëgg la avant muy tàq ñeme nga ko jege nga ko mais imagine toi boo ko taalee mais boo ko ta waaye yow waaye na tàq jëppet non seddaay tàngaay yi maanaam dafa am fu sama xel ju dem fu sori fu daw yaram muy si prison bi waaw si prison bi maanaam moo tax kaso su ma gisee nit ku koy yéene nit wala nga gis nit kuñ dugal nit kaso ngay wax ci moom lu ñaaw di ko yéene wala nga dégg nit am na problème maanaam nga nga kontaan ci yéene ko ko te maanaam jamono ji dafa yàqu léegi da ngay gis nit am problème sax nit ñi di yàqamti di woo nit di vocal nit yow di nga diw dañ koo jàpp maanaam dëgg la am na ñuy def loolu noonu de mais maanaam ñooñu ni ma leen di jéppee jéppi bi ma leen di jéppi ak ñoom kontante bi ñu ciy am ma koy gis nii nag mais ñun dañ naan ñun moo tax ñu naan nante nante yombul de ñun dañuy xam lépp bacca ay ngalawaay président ay relax waay président relax de de détenu yi waaw relax de détenu yi métti na boo yaa ngi dund lu métti man DJ rek laay topp topp ma lenn waaw ay bisaab yi tekki loolu bisaab yow xam nga bisaab yéen saa da ngay toog waaye yow bisaab nga waaye xam nga pour yéen saa dañuy tooñee yow ay seex ku yaate di tooñ kenn ko waaye yaay bisaab mais bi laa doyee bisaab mais polygami maligami rek yëpp benn la ma rek ma nekk ba fii kii yooyu noonu noonu de polygami maligami yëpp non baax waaw ah, parce que tous ay rëcc gin gin rëcc gin yu yu paaye yooyu yooyu dafa dafa nekk yoo xam ne yooyu maanaam waaw yu ancien yi la waaw te léegi bàq moo xew te parce que Bou Siteu ñëpp xam nañu Bou Siteu ñëwee stade orchestre yi muy indi ak guddi yi nii su ma ñëwatee stade ni ni jeunesse bi di génnee di ma topp xool li Bou Siteu war a indi is ce que xam nga ne ay open press yi nii nii ngay gis gis nga open press nu mu suyee am am ay ay kii ay affaires yooyu nu ñëpp gisee sama combat maak euh, maag nëpp du open press indi affaire yooyu noonu fekk jour boobu nag sama koñ dafa amoon xew mu amoon lool si guddi gi ma war a xëy dafa open press xew bi neex ma gis affaire yi xam ma ne gaynde gi wallaahi xool ma génnee trente mille la ko gaynde teel ma lii suba sama open press damaa ñëw nga dama bëgg sax booy bi ñëw raja ma open press maa ko fi njëkk a def mbër yi di ko estat yi ne mais lii dafa garaw mais wax gisoo léegi nu mu siwee xale bu jong ma la yor xale bu rafet bo xamante ni maanaam fan yi ni, ni sa sax ak si sama niveau fu mu toll les ñu bëri fan yee sama jabar am ben vidéo bu mu dess collage rek duggal ko manam muy mu metti mu japp mu wan na ma ni maanaam toppee ma la lamb waaw fan yi la nit ñi gis ni aduna bi ñëpp di desante mais yow ci sa jabar ji yalla ñu la yé la ñu caddaal sama jabar amul mbër bu dak sama jabar ci lamb ji VIP yi ba ci suuf ken dàq ci sama jabar sama jabar ken gënu ko nek jongoma jégu mineur xam nga nek jongoma bo xamanteni nek champion ba mu jàppee ba léegi bàyyiwul kooku maanaam comme ay comme comme comme comme ça nga kuloog sa jabar de ñu naan ay fay na mu ngi seen kër te yenn saa yi damay def erreur de mais day ba mu suulee tànkam ba léegi sulliwul tànkam kenn musu ko dégg ay dañoo am problème fay na dem na gàllam champion déggal ma nag waaw di ko ñaanal Fa Bintu yàlla yaa ko yàlla defal jàmm di nuyu suma goro yeeg ñëpp waaw di leen wax ne yàlla leen yàlla defal jàmm quoi. mbalax déglul Waly Seck rek est-ce que xam nga ne Waly Seck boo ko dégloo rek mu mel ne yaa ngi àjjana bu ndaw nga toog di déglu ay son wu Waly Seck rek ay son wu naajo booy bu xew boobu fan yii nii nii nii nii ñooñu boo leen déglu man ñooñu maanaam su ma leen di déglu day mel ni àjjana laa nekk maanaam ci seen mën way Waly Seck yàlla na ko yàlla defal jàmm séeri Kya Aidara Waly Seck séeri ay Aidara mais nag ñëpp xam nañu si àdduna benn artiste laa am muy ndongoloo di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm kooku laa am ci artiste amatuma beneen artiste mais si ñi mun a way laa la ci mbalax ci ñoo xam ne boobu moo leen déglu day mel ni ndongoloo laay déglu Wally Seck les chanteurs du peuple loolu kenn du ko dindi ci réew mi du nuyu Mor Talla doomu nday Wally Seck borom Sandaga Mor Talla Fall nekk nit ku baax waaw Wally Seck moo dàqa way ak naajo mii ma lay wax ak Bastoun waaw Bastoun ku mën a way la waaw ñii ma la wax nii booy déglu seen way maanaam day mel ni àjjana nga nekk ma bëgg mu ñu bëgg ma nag te yàlla rek a tax mais du ay loo xam te nii nga bëgg nit kii nii xam nga natt ñëw xam nga yàlla indi torof torof nga jékki-jékki bàyyi ma kon damay damay jàpp ne yow lii nga ma toppee woon man boo may bëgg bëgg ma rek te yàlla tax ñu ànd di koy dund mais góoma ngay ànd ak man mu metti nga daw wala ñu ànd ak may ànd ak yow sama succès gën a yokk du ma ko doxee nag de mais yow yow foofoo mënti nekk si àdduna bi xam nga ne Bou Siteu niveau aju na succès bi ñëw na ñun ñi ñu ngi koy xam nga la waay yow bëggee ma man ma bëggee woon bëggee ma ko rek bul mer non TikTok man sama compte TikTok Bou Siteu officiel bi la mooy bu baax bi bi am photo mbër bi am na sax ñoo xam ne dëgg la ñu am na ñu ma pirate ñu bëri ñoo xam ne ay Bou Siteu lañ ñu ñu yaakaar ni Bou Siteu la mais nag am na si ay booy yu baax yoo xam ne nii maanaam ñoom da Bou ubbi seen compte TikTok yi de mais da ngay gis benn nit bu baax nekk si Europe bi gaan jël samay numéro xam nga ma sama numéro ay millions de numéro kii addunaa yor sama sama numéro la ñuy jox kilifa yi ay nit di ma woo damay yenn gis sax nit woo ma ne ma kontaan naa de maa yow nii naa si xam ni am na ñu may pirate ñoo xam te nii dëgg la ñu ngi may pirate de seen compte di gën a yokku de mais ñoom ay nit ñu baax lañ quoi bu leen neexoon ñun ñu am nuñ def di joxe ay numéro faux numéro ñu leen di envoyé xaalis mais suñu numéro la ñuy joxe kon di di bëggee tamit ñi nekk si TikTok bi di ma pirate xam nga moo loolu dina wax ne pirate bi daal lu ma jig la kon gën leen maa pirate mais dee leen joxe sama numéro comme ni ngeen di joxe kilifa yéen kilifa yi sama numéro ñoo ñëpp ñu ngi may woo teraanga yaa ngi ñëw kon kontaan naa si yéen ba pare yéen a ngi yokk sama visibilité xam nga gis naa visibilité bi ni may ni ngeen di yokkee sama visibilité kon kontaan naa si tiktokeur yi ku si mel ay dara ay dara émission bu ma dugg mu xam nga gën ma buugale daal buugale yi daal baax na daal dee la ma gën a buugale instant yi Samsung laa yor nii de mais sama niveau sax dépassé na ay Samsung instant yi iPhone 15 bi laa war a laal spora bi am na ñoo xam ne nii ñoom bëgg nañ di gis Bou xam nga yenn saa yi buy woote bu tegee si noppam da xool ñetti bët yi nga xam ne kii bu baax bi la yor Samsung bii ma yor damay sant ki ma ko mayoon jiiri 16 bi moo tax sama téléphone bu heure bu ma ko yoree nii nii nii rek di xalaat nii rek sama xel day dem waaw am na boo yoo xam ne dañuy gis téléphone nii rek xam prix bi booy bindee prix bi man sa dama leen dama mais man sama niveau ak toogee naan sama niveau dépassé na niveau yi mais mais xoolal booy bi li mu bind te te xoolal li de nice mais dafa jot sama prix téléphone aju comme sama niveau nu mu ajoo nii prix bi fekkaale aju bi mu gën a nice waaw di jégalu na ñi nga xam ne seen message yaa si suuf si taat bi te liiraguma ko te parce que ñoom xam nañ ni maanaam Bou ko sonal daal maanaam day na si jàmbaar am na ñoo xam ne dañ may tegale dix vocal maanaam vocal ma boobu du ko gis de day bokk yi nekk si taat bi si suuf ñu vocalaat ma day yéeg de mais day wàcc ñu vocalaat ma vocal ba dix vocal mais su ma ko liiree nii maanaam damay damay ruus damay xam ne waaye kii mooy nit waaye parce xam ne ni Bou Siteu jeunesse bi ko sonal kon am na ñoo xam te damay gis nag ñoo xam ne dañ may mere loolu damay gis ñoo xam ne dañ may mere loolu te loolu mais man maa nekk cent personnes benn nit laa mais damay gis ñoo xam te ni maanaam damay gis dañ may dañ may vocal de ñoo xam ne booy bii kat wallaahi li nekk ci boppam te parce que xam nañu booy bi jeunesse bi ñoo ko wuy si waaw kon nag di béggee nag di béggee gars nag ñi nga xam ne seen message yaa ngi si suuf te liiraguma ko waaw di leen wax ne nag dina liir yëpp te parce que maa ngi fan yi maa ngi yeewu ay 5 heures du matin xam nga su boobaa ñii la xale yi ñëpp heure boobu laay jóg nag di wàcc ci suuf di tontu di tontu mais ay booleen ma tontoo ba kii moon day gën a wàccaat ci suuf kon nga waay waay jàppale moo da ngeen kii xam ne whatsapp yàggul daal waa taf taf